Modou ñëw. waaw ñëw na. def. docteur naa def. yaa ngi am jàmm. maa ngi sant. ça va alhamdulilah. sama yaay lu mu def mi ngi tane. ngi te dina gën a tane bu def nañu lu ñu nu mu gën a gaaw est que mun naa xaalis bi fu mu toll chiffre exact bon soxna si moom dafa war a def opération te opération bi mu ngi xayma si un million franc CFA waaw un million lu ci lu ci ëpp solo nag dangaa war a gaaw bu dee bëgg nga bi dëgg parce que instant bii nii ñun def nañu lépp lu ñu war ci rek la des maa ngi dem na parce que am na liggéey yu ma ci biir. waaw allo yow dégg nga li médecin bi wax. oui grand dégg naa man instant bi dama génn am lu ma jëndali mère bi pour mu lekk yow kay indil xaalis rek. <laughs> yow xam nga ñaata dox mooy faj man xaalis boobu fan laa koy jëlee fi mu nekk te xam ne gouvernement bi fay fi ma toll nii yoruma benn dërëm ah.

xam naa ne nag li nga war lépp def ko vraiment taxaw nga maire bi def nga li la war yépp mais nag cette fois ci moom cas bi dafa doy waar ndax nee nañu maire ñetti fan nga am pour dund moo ko des su fekkente ni gar gaawuñu indi somme un million. mais yow looy wax nii. oh my god non lii woon a am. sama goro bi nga xam ne baax rek la def. noonu lii du am mënul am je. man si jaaxal mooy sa jëkkër jooju dafa nar a toog di seetaan yaayam ba mu te du def dara. non t'inquiète pas ndax lépp loo xam ne war na ci dem dinañ ko def dinañ jël xaalis bi jox ko Aïda nu mu gën a gën a gaawee mu yóbbu ko loolu moom bu ci sax xel ñaar. noonu nangam nangam te mënul taxaw sax ji ko su ko jóg ah non moom lii moom jaaduwul quoi. Touré baax na nañ sauver mère ba pare rek après lépp lu ci am rek dinañ ci dox après dinaa la rejoindre. sa maam moom kon boobu ba tey mu ngi hôpital moom ñaata temps la fa kon. sama maam sama jiw war na fa def deux mois. moom de te ba léegi amul benn tal. mais tonton ture kon moom lan la ciy def. tonton Touré de xaalis bu mu ci amul lépp def na ko ci même sa yaay sax xaalis yi ñu ko doon envoyé lépp dem na ci. te pourtant sama yaay waxoon na moom mère bi mu ngi tane bu baax léegi moom lan moo problème bi wala ah. traitement yi moo baaxul walla ah dégg naa daal ñu naan médecin bi un million la laaj. ah bon. waaw. Mm-hmm. moom doy na waate. ah yàlla baax na. yàlla baax na. jaara jaara. ñëwal te nga woo waaleel ma Aida. mais yow naka mère. mère de mu nga fa man damaa tiit sax damaa xam ne fan yu néew yi ne lañ fi may leen di jëntee som dem bu doon noonu pour sama opération yaay bi. bul am dara lu la jaaxal li ma bëgg mooy nga jóg dem sangu ba set te ñëw préparer dellu li ci des na ngeen bàyyi ko ci sama loxo te xam ne lépp dinaa ko gérer. yow daal mën nga ne chaque jour nii ngay dëkkee ba dëgg yàlla jabar ju baax nga lu ne yaa ngi koy def ci kër gi xiifuñu maruñu sama yaay muy ci ñun ba dëgg yàlla amuñu sa fay jabar ju baax nga yow de jigéen ñi di sëy ñëpp war nañ xool ci yow na royukaay nga amuñu luñ lay fayee ba dëgg yàlla waaye pour man sa xaalis bi nga yoroon yëpp danga ko dépensé ba mu jeex wala dangaa am keneen ku la mën a lebal som boobu som boobu ndawul de yaay. mais Aïda nee naa la ñu jóg préparé wu ji pour sa voyage bi. waaw kooku ba ne xaaral <laughs> préparé. sama yaay am na loo narate de. Hmm. am sa papa ba mi ngi nelaw. mu ngi nelaw. Hmm. xam nga lu ma bëgg. Hmm. <laughs> man yow jaaxal nga ma. billaay meer yaa aay. yaa mën yaa ëpp doole yaa xam nga doo moroom benn xale. yow daal bu la dara metti man yow rek laay topp nag. papa kaay gaaw sama yaay yow lay sëriñ ju mu ngi nee di wax téléphone ak sëriñ bul wax dara nag noppi waaw mi nelaw bàyyi naa ko muy nelaw mbaxane baa ngi nii mbaxane bu weex bi mi ngi nii sama loxo d'accord d'accord ma woo ko ñetti d'accord maa ngi commencé Modou Modou Modou def naa ko ba mu ñetti yoon mhm. Modou woo naa la ñetti yoon lépp loo xam ne alal la baa muy teraanga nekk ci sa famille ci seen askan wi yépp na lépp ñëw ci man def naa ko ba pare d'accord dinaa def tout ba duma laal dara ci moom d'accord ah danga bëgg a wax ci li ma liggéeyal nii ñaari fan rekk ah mais lu tax nga defal ma loolu du loolu laa la santoon ah kon moom lu mu ma gën a jox xaalis di gën a réch déedéet déedéet kooku moom laal xaalis boobu mukk mukk waaye. nga ne su ma joxee cinq cent mille dina doon millionnaire un million cinq cent nag mooy milliardaire lay am lay doon. kon duma ko jëlal benn dërëm ndax bëgguma mukk mu doon milliardaire ci ñaari fan. ma jël xaalisam daal woyet ñàkk njariñ mukk duma ko jël kon xaaral ma ni ko maa ngi dem anniversaire ba ndax su ma génnee kër gi doon milliardaire moom nag mu woyadi waa baax na baax na maa ngi coupé Hmm. man ndaw si moom man la bëgg a rey <laughs> nag dama bu bu sama doom ji jigéen ñi tombewul woon ku mu ko wax du ma gëm <laughs> waaye nag bàyyi léegi dafa bëgg dox ci sama kaw <laughs> léegi man mii may dox. cinq cent mille un million cinq cent cinq cent mille un million cinq cent man bëgguma nekk millionnaire je veux être milliardaire man ay milliards laa soxla moo ma arrangé un million cinq cent chéri. waaw chéri yeewu nga. yeewu na. mu ne dama bëggoon dem ci anniversaire bi fee ci xale yi. ah kay tuur ñu waxtaan. Hmm. kay tuur. maa xaw a yàqamti nag. voilà. <laughs> man daal damaa xamul ne. Hmm. lan moo tax nag ñu ma laa bégal hmm? tey moom dama laa bëgg bégal ma nga kontaan. ah chérie man yow ci bégal ma nga dëkk di. mais yow xaalis. non non du ma ko laal. du loolu tey dama laa bëgg a may xaalis. Hmm. waaw parce man gis naa li nga def ci famille yàgg ngaa jëf ci ñoom. sonn ci ñoom li nga am yëpp def ngir famille ba tax na daal ma apprécier loolu dalaa may xaalis. ah si yow moom ci apprécier nga dëkk di te xam naa ni temps yi yoroo xaalis te ngaa bàyyi noonu rek. Ah, dafa am benn surprise wala am. waaye rek un million jël. xaalis bi. waaw soxlawuma ko. waaw. ndax maa ngi sant bu baax a baax yaakaar naa ni war nga cee mën a def leneen maa ngi sant nag. jëlal xaalis bi nga am ay maa ngi sant jëlal xaalis bi. sant. jëlal xaalis bi. xaalis bi ko. yaa ma ko gën a soxla am nga leneen loo ci war a mën rek man maa ngi sant bu baax a baax maa ngi sant. dama xaalis bi laa nga jël ko. maa ngi sant nee naa la bi yaa ma ko gën a soxla. jëlal enveloppe bi. mooy li ma la wax rek maa ngi sant bu baax manqué wu ma dara. enveloppe bi un million cinq cent moo ci nekk. Mm. ngi sant rek mooy li ma la wax rek maa ngi sant bu baax a baax manqué wu ma dara te xam naa ne lii yaa ko gën a soxla. <laughs> mais yow sa jëkkër di la may xaalis ngay may eh man xoolal lii waaye yow ah lu teel a lii. comme yaa ngi insister naa ko jël rek. merci beaucoup chérie kontaan naa trop. waa kay kay kay kay ah taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw taxaw xaalis bu toll soo ko téye xam noo koy téye tàllal sama xëy man la tàllal koy nii ngay nga koy téye ah. waaye dara jotul. lu may dal. yëgoo dara. ah lu ma war a yëg. ah yow kat da ngaa waroon a jàmbat. mais lan laay jàmbat. ah lan laay jàmbat xaalis jël naa ko. lu ma ciy jàmbat ak lu ma yëg. mel na ne da nga waroon a <laughs> ne woon yoroo benn xaalis ma jël xaalis alal bi ma yor yépp yóbbu ci sa yaay pour mu faj ba ci sa frère bi di seetul dara yow ñu laaj da ne yoroo. tey nga génn un million cinq nga dal ma koo jox di ma ko neexale gis nga xaalis bii sa yaay jee tëdd ci lalu hôpital moom laa koy faji jee waaw sama envelop bi un million cinq cent moo ci nekk dama bëgg nga daw léegi léegi léegi hôpital yóbbul ko yaay pour opération bi la te na nga def très attention nag gaaw. merci jërëjëf waay. allez allez. allez andi xaalis bi. waaye papa kon yow ba ñuy wax yëpp yow soo man tëdd feebar. ñu wër fu ne xaalis bu faj ko yow yaa ngi xaalis sa biir néeg toog ne pat loolu pour lan la. ma sañ koo wax